Euh, de Donc, je suis le président du jury 1506 euh, Centre Nouveau Lycée de Kaolak. donc, euh, j'ai un jury L' et LR. Donc, c'est ce qui font langue et arabe. D'accord, langue en Voilà, donc j'ai un jury de 418 candidats. D'accord. Donc les statistiques, après, vous voyez avec euh, M. M. Ben, donc pour l'instant, tout se passe bien. Donc il y avait juste un petit cafouillage au début parce que il y a des candidats qui sont venus au centre avec leur téléphone. Et quand on a vu les téléphones dans les sacs euh, et dans les salles. Donc on a récupéré les téléphones et on a appliqué la mesure. Donc la mesure, c'est d'exclure ces candidats-là, parce que dans leur convocation et dans les communiqués que le ministère a fait, le communiqué que le directeur de l'Office du BAC a fait, le téléphone portable est interdit au centre, même si c'est éteint, c'est interdit au centre. Donc on a juste appliqué la mesure et on a exclu ces candidats. là. 64 candidats exclus. Voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'ils peuvent espérer continuer les autres Non, non, non. Un candidat exclu, il est exclu. Le reste, maintenant, ils vont voir avec euh, la commission disciplinaire de l'Office du bac, après les épreuves. Euh, tu vois là, pour le Salam alaikum. donc je euh, la Amna Ndiaye Je à l'Université de Dakar je suis président jury 1506. voilà donc am na 418 candidats yoo xamante 218 yi dañuy def L prime 200 yi def euh, LA voilà donc pour l'instant instant lépp mu ngi jaar yoon épreuve yi waaye ci jë ci njëpp ci commencement bi am na problème bu ndaw ndaxte candidat yi daa am ñoo xam dañoo ñëw indaale seen téléphone portable ci biir saal te téléphone portable comme ni ko ministre waxee ni ko directeur office di ko wax waxee téléphone portable warul dugg ci centre bi waaw donc ñun ñu ñëw fekk ko ci salle bi donc ñu daal di appliquer li ñu yoon wax yoon li mu wax ci loolu mooy da ngay exclure candidat bi donc toll nañ ci 64 candidat yu indi woon seen téléphone ñenn ñi sax am nañ ñaar ñett téléphone yu ñu indaal téléphone bi mu nekk 77 téléphone waaw merci beaucoup ndax mën nañu yaakaar xale yi mën nañ composé waat yeneen déedéet loolu kay amul yaakaar parce que exclure mooy mooy dàq nañ la léegi nak li ci dess moy ñom après man sama waref def na ko après ñoom dañuy dem office du bac ñu xol commission discipline kañ lay waxtaan pour ñu jéggel leen wala ñu bayyi waat leen ñu def rattrapage wala benen ane ñu defaat bac. téléphone yi da ngeen ko fekk ci seen poche fa ngeen ko fekk. ñu yu si gëna a bëri ci seen sac la néwon téléphone yu ci bëri gëna a bëri ci seen sac lañ ko fekk. Hmm. mais ñom dañ japp né mënon leen waxtaan. waxtaan amul. parce que ci seen convocation kenn ku ci nekk ci ginnaaw bind nañ ko ne la téléphone warul ñëw ci centre bi ñu communiqué si njiit yi communiqué si directeur wax communication bi nekk na ci olof nekk na ci français rajo yëpp teg ko wax parents yi ñu def ko donc fuñ toll nii jël nañ suñuy mesures. nga fàttaliwaat ñu ñaata candidat ñoo composé si seen jury bi ak ban jury voilà donc statistique booy mu ngi nekk 418 euh, candidats série L prime comme ni ma ko waxee léegi cent 218 la série LR ñu nekk deux 200 donc am naa ci L prime bi 6 yoo xam dañoo absent waaw ci LR bi ma am ci 5 absent. contrôle bi da ngeen ko def euh, ci ñaata classe téléphone yi ngeen jàpp ci ñaata salle quoi. bon ci saal yëpp saal bu ne dugg nañ fa. ñaata saal waaw saal bu ne dugg nañ fa bon mënuma xam ma nombre saal bi mais saal bu ne dugg nañ fa. Hmm. jërëjëf merci beaucoup.